su nekk ci Dakar Live TV ginnaaw bi ñu leen ziare bu baax a baax wax leen rek li tey dañoo daal di déplacé wu ñëw fii ci diwaanu euh, Zac Mbao jege loolu poste courant bi ki ñu fi seet si nag mu di rek Serigne Gobe sekk euh, Saalum Saalum borom sarax bi moom laa seet si tey ñu fas yéene sekk waxtaan ci actuel yi nga xamante ni moo fi jot euh, xew rawatina ci wàllub liggéeyam di ko yàlla may xam-xam sëñ Gobe ziar naa la bu baax bàyyi la nga nuyu ñu lay seetaan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi diini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mm-hmm. ihdina sirata mustaqima sirata allasina an'amta alayhim ghayri maghdubi alayhim wala daalin alhamdulillah alhamdulillahi hamdan yuwaafi ni'mahu wa yukaafi masiidahu wasalaatu wasalaamu ala seydina muhammad salallahu alayhi wa sallam wa ala mm-hmm. alihi wa sahbi wa sallam ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax si déplacement yu ngeen di def di wër borom xam-xam yi di leen taataan micro mm-hmm. Euh, saalum saalum bi moo fi teew lépp luy xam-xam rek su ngeen ñu ko mm. laajee lépp lu luñ ci xam ñu wax leen ko luñ ci xamul rek ñu dem gëstuwaat ko ba xam mm-hmm. ko man kay wax bismillah waaleykum salaam mu nekk nuyoo bu ama am solo ginnaaw bi ñu la jaajëfalee bu baax a baax fàttali leen mbokk yi ñu seetaan ñu ngi ci diwaanu Zac Mbao seet si rek Saalum Saalum bi Serigne Ngobe Seck xam ngeen ko bu baax a baax ndax itam di ko yàlla suñu borom may xam-xam sëñ Ngobe directement dañuy tàmbali waxtaan wi ci lu jëm ci wàllu politique gis nañu ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko dafa yëkkati ay kàddu xam leen ni dafay focus ci 2024 ndax jàpp nga ne Ousmane Sonko dina bokk ci candidat wu 2024 yi nit la koo xam ne guddi yuñ toll nii. Mhm. ku ko ëpp bayra si réew mi yombul. nit la koo xam ne tim ku ko ëpp soppe si réew mi yombul. Mhm. ndax moom rek mooy xeetu doomu aadama boo xam ne euh, moom la nit mën a taxaw ne jël naa sama bakkan teg ko ngir Ousmane Sonko. Mhm. te muy doon loo xam ne lu kem tànne la si mbiram politique. loo xam ne lu jafe la tim si mbiram politique. waaye mu nekk nit koo xam ne xam ne yëqin ne. Euh, man na yore réew mi euh, man sama jëmmi bopp mhm. mënumaa wax ni euh, gis naa si lii gis naa si laa waaye gis naa ay sama nawle yoo xam ne dañ may nettali ay mbir si Ousmane Sonko. yoo mhm. xam ne sin borom moo leen kay feeñul mhm. su ma si sukkandikoo mën naa di wax ne dana jël réew mi waaw waaye ni muy demee nii su ko teggiwut tànkam mën na yor réew mi waaw waaye nag lu si laxasu dafa bëri ji nga fii ba mille 2024 mhm. mystique bi dafay bëri lool xeex bi tim day bëri si réew mi fii ba mille 2024 moom réew mi wàllu mystique dana fi teg tànk teg tànk boo xam ne euh, ndaw lu amut kaaraange sax da nga siy des hmm. waaw loolu moom yàlla def na ko mhm. ndax euh, bu doonut usmaan Sonko dafa am ñeneen ñoo xam ne dafa am lu leen mbir yi jaral Euh, mbir yi yeggut fa mhm. waaw ndax ku yore réew mi dafa doyalagut te bu doyaloon rek réew mi neex waaye mhm. doyal moo amagut moo tax ñi ngi koy xëccook lu muy laaj dafay bëri mhm. waaye nag euh, ñi ngi ñaan yàlla daal yàlla def ci jàmm te di wax ne nit bu la boo génnee rek ndaw ñi fonk la euh, gën a la defaraat sa toogaay rek te xam ne liñ la fonkee boo si taxawee rek duñ la gaaw a wax lu dul noonu waaye boo teggee sa tànk rek ay xale leen faw ñu génn cooweelal naka su dul noonu mm-hmm. waaye daal ñu ngi koy ñaanal yàlla di ñaanal yàlla képp ku nekk si réew mi jàmm di ñaan yàlla réew mi teraanga ju fi nekk sin boroom dimbale ko xam nga euh, dafa am loo xam ne si réew mi mm-hmm. kii wax dëgg te yàlla tax euh, man li may chiffre politique bëriwul waaye Sonko laa gis moom mooy génn wane sin xaalis bu ñuy yàq si euh, neen mm-hmm. loolu moo tax ndaw ñi Euh, xataraayu nan nañ nañ nañ jox réew mi mu defaral ñu ko loolu rek la mm-hmm. te loolu noonu bu si saxee euh, sin borom dina ko dimbale ndax Sonko dangay gis kilifa gu toog yore kurusam nekk sa ruq ba mu jaral ko fanaan si deram ngir Sonko mm-hmm. ngay gis kilifa gu toog yore kaamilam di ko wàcce ngir Sonko te loolu gisuma politicien bu ko am mm-hmm. waaw xam na nag ñu may gis sax ñiy wane ne Sonko euh, turam bi moo doy waar moo tax ñin ñëpp suñ tur yi dafa doy waar dafa am lu ko suñ borom defal rek du mhm. si xeetu tur yi waaw dafa am lu ko suñ borom defal waaye nu mu ko defal lu mel nan waaw maanaam xam nga tey nit boo bindee turam boo ne Ousmane man nga bind beneen Ousmane mu méngoog moom te lu usmaan bi yor te yorut ko mhm. maanaam tur woo génne rek dana xam turu yàlla woom génne waaye du foofu nit dafay yàlla da koy may euh, mu juddoo euh, si xeeti way jur yoo xam ne suñ borom dina ko defal dara mhm. nit Euh, yàlla dina ko may mu judd suñu borom defal ko bayra boo xam ne te fekk ay woyu juróom sax mhm. meluñ noonu loolu yëpp dafa si laxasu waaye mayak ak suñu borom moo toll foofu waaw waaye du ne sax ay turam moo kemtaane genn xeetu kemtaane gi man mhm. gisuma loolu duul lu ma xool nag waaye gisuma loolu mhm. ndax bu doon loolu la rek euh, ñii kemtaane daañ bëri lool Ousmane yi bëri neen lool waaw xàll yi bëri neen xeet yëpp bëri neen waaye du loolu dafa nekk ne sin borom daal moo am lu mu ko defal te loolu dafa laaj waxtaanu yaatoo yaat suñ ko mhm. toppee dina jël émission bi mhm. bis dana ñëw ma toog euh, am lu ma leen waxtaanal si moom loo xam ne dina tax ngeen xam ne kii lu ko yàlla may lii la ndax euh, politiciens yëpp euh, moo si gën a néew mystique mhm. mystique am bëriwul moom waaw buñ doon wër politiciens yëpp moo si gën a néew mystique te moom moo si gën a kawee baat lu ko waral loolu lañ war a gëstu. ñu ngi sant yàlla di leen ñaanal jàmm ñoom ñëpp. Mm-hmm. bisimilah. d' accord euh, wax nga sànq sa biir yi wax nga xam le ni maanaam Ousmane Sonko dafa am ñu nga xamante ni say naataango lañ dafa am kàddu yu ñu yëkkati ci moom looloo tax sax moom nga gën nga gën ko jàpp wala nga gën koo tegi gët euh, yooyu la kàddu yan kàddu la. waaw xam nga man dama am ñoo xam ne man li ma yàlla gën a boole mooy nit ñoo xam ne suñu boroom da leen di wan dara. Mm-hmm. léegi na man nit woona ma wax ma euh, ay feeñuwaay suñu borom yoo xam ne dañ koy wan nii Sonko euh, bu yoree réew mi nu muy mel. Hmm. waaw loolu kay am naa si am naa si ay nit waaw. Hmm. Euh, man moom man sama jëmmi bopp bariwul lu ma gis si Sonko benn yoon rek laa ko mos a gis muy gént ko mu yor réew mi. Hmm. waaw benn yoon laa ko mos a def. te tim booba euh, ni ma xaw a ñëwee moo doy waar moo tax du ma ko nettali. waaw loolu su ma ko defee rek mën naa xam li nit ñee xalaat. waaw ah, waaye daal man ba ma ko gisee lu ma dama ñëw ba si fu mu nekk rek ma jox ko loxo ndako ndaw ñi dañ laa wóolu dem mhm. waaw loolu ko wax noonu mu yor réew mi ci ban anam waaw man maa ko loolu moom gént naa ko mhm. waaye gént réew mi ma ñëw jox ko loxo na ko ndaw ñi dañ laa wóolu mhm. góorgóorlu loolu rek laa wax ak moom jàll waaye lu mooy lool gisuma ko si Sonko mosumaay gis si moom dara waaw waaye nag dafa bëri ñu may woo lool naan ma damaa xam feeñuwaay bu ma feeñu nii mm. dafa am yeneen feeñuwaay yu ma feeñu nii loolu dafa bari lu may dal mm. waaw waaye nag euh, loolu daal daanaka euh, comme ay mbiri jàmboor la duma ma si xóot waaye man sama mbiri bopp moom su ngeen bëggee mën naa leen di euh, defal ay gëstu yoo mm-hmm. xam ne dinaa leen wax lu leer si mhm. ay mbiram. d'accord waaw gis nañ ni 2024 jubli nañ si ba noppi te Ousmane Sonko dafa wax que ni dafay focus ci 2024 euh, ndax gis nga ni Ousmane Sonko dina bokk ci candidat yi waaw loolu am na sama ne ma sax Ousmane Sonko du bokk si candidat yi. Hmm? waaw loolu am na ku ma ko ma a wax. waaye nag loolu moom man amuma si benn firndeel ndax seen laxasaayu politique la ndax dafa ñëw na ma. Mhm. Sonko mbiram mi du du jeex si neen. Hmm. waaw lu gaa yi bëgg dañoo bëgg fexeel ko ba du mën a bokk ci candidat yi. Hmm. waaw loolu nit wax na ma ko waaye man loolu duma ci sukkandiku ndax loolu moom. Hmm. ñoom ñoom seen biir ñooy ndax man yàlla dimbale na ma duggalante naag ay kilifa. bañ wan ma ne ma Sonko mbiram yi. du jeex waaye daañ fexe ba teg ko loo xam ne maanaam 2024 du mën a bokk. waaw kon su ma déggee ab dafa am leneen toppaat. ci loolu moom leeroon ma man loolu amuma euh, ci kii ba ma ko waxee tim lu ma ko wax mooy. mbiram politique moom man sama xam-xam bëriwul si waaye daal maa ngi ñaan ku gën si réew mi suñu borom teg ko loxoon ndax réew mi waroon na passé fii mhm. waaw réew mi waroon na avancé ba romb fii lu ko téye nag loolu lañ war a ñaan yàlla yàlla indi ko ku ko war a doxal mu doxal ko mu dem mhm, mhm. waaw loolu lañ si wax ndax ay mbiram gisoo ci sarax euh, déedéet wax dëgg yàlla ndax li may wax nii yëpp dama naan la diw nii diw nii waxtaan naag diw waxuma la gis naa lii waaw bu ne damaa seet gis daañ ma wax ne ma sarax bii la waaw loolu gisuñ si benn sarax wax dëgg jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax a baax ci leeral bu am solo bi ñu daal di dugg nag directement ci li nga xamante ni moom actualité la ba tey mu jëm ci wàllu rek li nga xam ne moom moo di mondial bi xam nga ni li ci des bareetul ngir ñu daal ci egg ki di Sadio Mané nag mu mel ni ñenn ci sénégalais seen yaakaar tas na lool ci moom ndax blessure bi nga xamante ni ànd na ak moom blessure bi tey lan lan nga jàpp ni moo ko waral ndax ay ay kéemtaan la wala lu ko war a dal wala dafa am ab xarfa xuufa bu ci topp alhamdulilah a ah, ñun de euh, xamuñ ndax euh, xaraka fuufa la xamuñ ndax lan la wax dëgg yàlla mm-hmm. gis nañ ne daal moom wax nañ ñu ne blessé na nangam nangam yooyu noonu yëpp déglu neen ko mm-hmm. waaye nag lu ñuy ñaan rek mooy yàlla may ko wér mm-hmm. ndax ndaw moom boo nekkee si mbir te mbir mi senegal yëpp bokk ko ñi gën la see wóolu boo boo xamee tardement rek dafay xaw a jaaxal doomi aadama yi léegi nag ñun loolu moom xamuñ lu ko waral waaye ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla may ko Mm-hmm. te tim di wax ne euh, Sadio Mané dafa war di gën a góorlu si wàllu ñaan daal ndax mm-hmm. ku ñëpp di coow mm-hmm. euh, gàllamkoor dafay yomb si yow waaw bu la yàlla dimbaliwu rek gàllamkoor dafay yomb si yow loolu bokk na si yu nga xam ne war na ci gën a góorgóorlu waaye daal si luñ mën a wax daal mooy ñaan yàlla yàlla def mu wér si nu mu gën a gaawee ba dellu si liggéeyam si nu mu gën a gaawee yaakaar gu Sénégal xam si moom moom mu dem defal leen ko mhm. te yàlla may ko mu xam ndam ndax ndam li si ndam la mhm. alhamdulilah ndax la nga doon def ci kan bi di nga ko def ci mondial bi ngir ñaan Sénégal Sénégal mun a sori ci match waaw man leen di ñaan sax Sénégal jël coupe bi loolu moom yàlla mën na ko def te bis bu mbir mi commencé mhm. mag bu ñëw bu ne man di wax lan mooy sarax bi bañ tax ñu jël ko hmm? loolu moom yàlla def na ko waaye nag euh, fu ñu toll nii mënumaay wax fenn fu Sénégal toll waaye bu demoon ba nga xam ne Euh, ñu ne suba Sénégal dana fubal wala gannaaw suba mën naa di wax ne lii sarax bi suñ ko defee dañ indi ndam li mhm. wala nangam ak nangam mhm. waaw gis naa sax fu ne comédiens yi bëri lool ay sarax bi lii la sarax bi laa mhm. euh, comme du doon benn benn ah, maxi sëriñ bi ay ay ay comédien nga leen jàppee du doon benn maximum Euh, saraxu benn mat si man na ne waaye buñ ne sarax bi tout nangam la mhm. waaye dafa xaw a reetaan lu bëpp ah, ah. sarax bi watu la ah, sarax bi da ngay dañuy watu ab ndel la wax <laughs> loolu dafa doy waar lool nee sarax bi ndel la na président Macky Sall watu Aliou Cissé na watu euh, képp ku nga xamante ni supporter la al man de bëgg naa coupe bi waaye duma ma sarax bi daa xaw ma ndel la xaw ma du ndel waaye man de <laughs> amaguma joti watu daal xam naa te du bëri tim ñu wat waaw modification yi dana bëri lool ndax nit ñi moom lu reetaan lu la ñuy wër jamono ji dafa toll foo xam ne nit ñi loo leen wax si reetaan lu rek dañuy dagg seen yitt yëpp ne si waaye loo leen waxee fulla rek ñu ñu jàll. ñoom nen di reetaan rek. waaye man de xaw ma joti watu wax. dëgg yàlla kon kon jàppoo ne watu bi lu sénégalais yi nar a def la. ah yow da xam joti watu ah da nga am joti watu Aliou Cissé ku ko bëgg a loo rastaam yooyu dina xaw a métti de. <laughs> waxal rek. <laughs> waaw ñu ngi sant yàlla bu baax. di mhm. wax ne daal. Mhm. lépp loo xam ne buñ ko defee coupe bi ñëw yal na yàlla def ñu gis ko te man koo def. def ko coupe bi ñëw si jàmm lépp lu leen di may jàmm tamit yal na yàlla si borom xëpp leen jàmm ju doy sëkk. Mhm. bañ mën a indi coupe bi si jàmm ak salaam. allah euh, am na solo bu baax a baax ñuy rafetlu ci tey gi macha allah ak kàddu yi am solo ñu dem directement nag ci li nga xamante ni moo di sa wàllub liggéey ndax ku la xam saalum saalum bi xam ne yàlla suñu borom may na la uh, ab xam-xam bu nga xamante ni yaa ngi ciy dimbale uh, jaamu yàlla ñu dooree ak li nga xamante ni moom moo di wàllub këyit ndax gis nañ ni bëri na ñu nga xam ne dañu nekk si réew mi bëgg tukki mu leen gis nañ ñi nga xamante ni dañu nekk bitim réew bëgg ab këyit boo xam ne dañuy dellu si seen réew mu jafe leen uh, tey sa sa client yi nga xamante ni yaa ngi jokkalante ak ñoom ci wàllu woowu lan ngay baax ñeneen yi nga xamante ni bëgg nañu ko xam nga dama mos wax ne mbiram këyit. Mhm. dafa nekk mbiram junni. dafa nekk mbir moo xam ne bëri na ñu siy wax lool waaye ñu siy ut xaalis ñoo si ëpp ñu siy liggéey. Mhm. waaw man ñett yi daal bu ko mbir yi daal bu ko nit ki defee bu ñëwee lépp lu war si këyit gi man na ko bàyyi sama loxo. soo defee effort yu nga war a def ba lépp lu luñ lay laaj nga yóbbu teg këyit ga tag fa boo ñëwee moom bu ñu waxtaanee man su ma defee sama liggéey. waaw danaa toog buy liggéey bee jeex dinaa la woon la ah kayit gi kat bis sàngam da ci jot hmm? waaw ah, waaye bu fekkee na xam nga euh, nit ñi dañuy dégg sëriñ rek foog ne sëriñ moom day foqati lépp hmm. foqatiwuñ li war mooy da ngay dem nga déposé sa lépp ba nga xam ne yow manqué loo dara kayit bi bu tagee na nga wax borom turu yàlla na ko ñaanal ma si kayit gi boobaa bu ñaanee rek lu ko tagloo yëpp da koy da koy décoté mu ñëw mhm. waaw ñi def la messance na la sa kayit bi euh, mën nga koo jël si wala mhm. sa kayit bi noppi na waaw waaye bu fekkee da toog rek naan man damaa bëgg kayit wala damaa bëgg tukki te te demoo sax ñaani visa mhm. man manuma laa ñaanal nga dem ndax euh, jàmm moom dafay sabablu leneen lii am am waaye boo sabablu dara manto am kon dangay ngay sabablu ñëw bërëm turu yàlla mottalil la ñu ngi siy sant yàlla si côté boobu di wax ne ñu ngi siy gërëm ñu bëree bëri ñu ngi siy jëflante ak ñoo xam ne suñu mhm. borom def na sutura. Mhm. ba lépp luñ bëggoon am nañ ko xam nga ñun. boo gisee ñi waxee nii dañoo nekk doomi saalum mhm. te bëgguñ ëllëg nit na saalum-saalum bi ñiy wax loo xam ne dañ naan saalum-saalum du daan waxee nii waaw saalum-saalum lépp lépp rek si yàlla la koy teg waaw adduna bi bokk su ñu fi gën a gëm yàlla waaw ndax saalum-saalum moom ku ko xam-xam ne euh, léeg-léeg da ngay jaar fenn sax ñu naan kanaa saalum saalum nga ñu ne waaw nga ne amoo caaxaan mhm. kon danaa damay teg kàddu yi foo xam ne ñu déggee du ma tooñ waa saalum saalum macha allah looloo waral lool am na solo sant yàlla eh, ndax ñi nga xamante ni dañu dañuy ñaani ji visa ñu di leen rejeté di leen rejeté waat est-ce que ñooñu itam bu ñëwee ci yow di nga leen jàppale waaw loolu moom bu dee moom la moom boo ñëwee mën naa lay dimbale defal la loo xam ne boo paree dama naan la demal ñaani visa comme fu ne guddi yu toll nii ñu may nit ñi wooyee naan ma Euh, Amérique dañuy maye xaw ma green card. Canada mhm. waaw. Mhm. yooyu noonu bëri na ñoo xam ne wax dëgg yàlla am na ñu ma si tënk kàddu ba ne leen faw ñu may leen. Mhm. loolu moom bu dee moom la mën naa la defal ñaan goo xam ne foo mën a jaar dañ la may. waaw macha allah bu dee yooyu la moom amut problème say kayit yëpp bu jagee nga am passeport yëpp. boo demee di ñaani visa moom dañ danaa si def ñaan yoo xam ne boo demee ñu ne la bisimilah. Mhm. ñu ngi siy sant yàlla bu soobee yàlla incha allah kon yaakaar naa ñi nga xam ne ñoo lay seetaan jamono ji dégg nañ bu baax a baax kàddu nga xam ne wax nga ko ñu dem tamit ci bi nga xamante ni dana sonal lool suñu mbokk jigéen yi wala sama mbokk jigéen yi laay wax ndax bari na si ñu nga xamante ni yàgg nañoo wut borom kër mënuñu koo am toog ay ati ati at fu nekk ñu jaar fa fu ne ñu dugg fa ngir am boroom kër ci wàllub ñaan waaye ba tey ji tasewuñu ak li ñu war a tase tey ñooñu lan nga leen di wax ak lan nga leen di jàppale. waa alhamdulilah. Mhm. mbiram am doom moom lu ma ci wax mooy. jigéen ju taxaw te sëyagul jigéen ju taxaw. te te mhm. sëyul. yàgg ko wut. waaw bu dee dafa am ay façon yu koy waral benn bi mooy. Mhm. Euh, euh, fekkee da nga doon jigéen. ba daan bañ daan nekk Saalum. da daan gis xale boo xam ne amagut sax ñaar fukki amagut sax dix-huit ans waajagut kay am mu sëy. Euh, li ko waraloon mooy. ñoom seen doom yi dañ leen di ñag ba xeeti rawaan yi duñ leen dugg te tim mm-hmm. Mm-hmm. seeni doom yi dañ leen yar yarin boo xam ne duñ tànn boroom alal ku ñëw ñu dugg si te yàlla tax mm-hmm. waaye fu ne da ngay mel nu nga war a mel nit ñëw na la da dama laa bëgg ngay gëstu lu mu am nu mu toll beneen bi si topp mooy nit ki dangay xaar mu yor oto mu def nii wala nga ne na may million nangam su loolu yëpp amul du ma sëy loolu noonu bu sekkee si loolu nga dëkk doo sëy jarul Mm-hmm. day fekk nga bëgg sëy ba pare si am lii gàntal mbir ni nga yore caru ak yu demee noonu loolu mën na la gàllankoor si sëy mm-hmm. bu dee yooyu la moom boo ñëwee man neen la si dimbale sin kemtalaay kàttan mm-hmm. waaye bu fekkee ne jigéen gi dafa yore ay rawaan yu doy waar man duma faj rabu daaneel ba ngay yuuxu bépp rab bi daaneel nit ba muy yuuxu bul ma wow duma ko faj lu tax waaw ndax euh, dama nekk ndaw te dafa am lu ma bëgg am naa secret bu wér ku mu ko xëpp rab dañ si yow waaw su doonu rabu cosaan mhm. waaye bu fekkee ne rab bi tey dafa doon rab boo xam ne faru rab yu kii la boo ñëwee mën naa lay may loo xam ne soo ko jëfandikoo bu fekkee moo lay gàllankoor da nga sëyi léegi mhm. waaye bu fekkee ne nag yow euh, jëkkër jafewul la yow yaay dàq mënuma si yow dara d'accord am na ñoo xam ne jëkkër jafewul leen ku mhm. ñëw ñu ne xaaral waaw ku ñëw ñu ne xaaral ku ñëw mhm. ñu ne xaaral maanaam di tàmm ci boo toogee ba ci kanam naan sa man damaa yor faru rab ak yooyu yoroo dara boo dikkee dugg ci te yàlla tax mhm. sëy da ngay dugg te yàlla tax bu yàlla dëppalee lenn daal lañ euh, euh, digale ci sëy mhm. sëy moom lépp mën nga koo bañ a seetlu ba mu di sëy kii laa bëgg ak kii ndax si mbir yi mën na ànd buñ ne la waaw moom bul si xoolati alal bu la joxee juróomi dërëm demal sëy ndax xéwal gu leen fay fekk foofu la leen di fekk sëy bu sëy bu alal lal ñàkk kaay laal. Mm-hmm. waaw waaye sëy bu ñàkk lal alal kaay alal alal mooy ñëw suuxat ko sëy bi gën a baax. Mm-hmm. loolu mooy wax ji mhm. ku si ñëw daal anam boo si ñëwee buñ xoolee daañ seet ñu la war a dimbalee ñu mhm. dimbalee la si mhm. ndax mbir yëpp dafa tënku si seet ñu si sant yàlla bu baax alhamdulilah am na solo bu baax a baax ngir ngir ngir mën a euh, moytu wala mën a aar doomu aadama ba nga xamante ne rabu mbedd du ko mën a dugg est-ce que kooku su soxlaa tey kaaraange bu ñëwee si yow di nga ko jàppale ndax itam bari na ñu nga xamante ne rab ci àll la leen toppee ñi mu toppee leen ci mbedd alhamdulilah rab moom bu fekkee ne num la mën a duggee bu fekkee ne danga danga da ngaa da yore doom mm-hmm. bëgg ko aar boo ñu woowee daañ la may secret yoo xam ne boo ko defee rab du la mos a dugg mm-hmm. waaw ndax bëri na euh, mag ñi daañ daan ñag seen doom xeeti ñag yoo xam ne euh, xale bu ndaw day yendu si xàll moom kese te du ko dal mm-hmm. waaw nag da gis koo xam ne euh, xale bu ndaw lay doon rab di ko sonal bokk na nag si yu ko waral mooy nit ki da ngay sollu jot waaye nit koo xam ne say cër yëpp si biti lay ne waaw foo mën a jaar rek yore feebar mhm. ngelawu seytaane dugg la yeneen ak yeneen dugg la mhm. waaw mhm. boo boo moytoo suñu borom dimbale la boo moytuwul nag euh, Euh, mu am kii waaye daal doom bu juddoo dañ koy ñag mhm. ba nga xam ne yenn yi du mën a yegg si moom am na solo waaw ñu ngi siy sant yàlla bu baax alhamdulilah am na solo bu baax a baax waxtaan wi tam am na solo ñu dem directement ci li nga xamante ni moom moo di jigéen bu taxaw lu yàgg te mënta am doom wala jigéen yi nga xam ne dañoo taxaw lu yàgg ëmb bu ñu ëmb mu daal di yàqu yu mel noonu lan moo koy faral di di di joxe waaw bu fekkee ne ëmb bu mu ëmb mu yàqu la moom mhm. mën naa la si dimbale ndax loolu lu bëri rab da koy waral mm. waaye bu fekkee ne dafa taxaw amul doom na dem seeti hôpital xam nga man kurus laa yor ak kii xam na yoo xam ne feebari biir yoo xam ne xaw ma ko mhm. léegi nag bu fekkee ne yow da ngaa wax ne feebar bu ñëw rek ma faj ko dangay wax lu amul maam dafa am yoo xam ne sëriñu ko moom am yoo xam ne oppital ko moom nit ki mën na yor feebar yoo xam ne dafa war a dem seeti hôpital ba noppi mhm. soo ko war a euh, xool bu sottiwul mu soog a dem si sëriñ waaw ndax am na yoo xam ne biir nit ki am na taxaw yu muy taxaw day am feebaru biir mhm. loolu nag hôpital moo la si mën a dimbale jox la yoo xam ne dina dina defaraat sa biir. Mhm. ba nga mën a amaat doom waaye bu fekkee da ngay ëmb mii yàqu moom loolu lu bëri rab da koy waral. Mhm. Mhm. waaw yooyu noonu bëri na façon waaye lépp lum si doon rek buñ gëstoo daañ la wax ne bu ñu demee ba seet say mbir. daañ la wax luñ si mën ak si mënul mhm. ñu ngi siy sant yàlla bu baax mhm. mhm. macha allah am am na solo loolu ñu dem ci li nga xam ne moom moo di kàttan wi ndax euh, gis nañu euh, ci réew mi moom boo jëlee euh, fukki góor mën nañ ne juróom wala juróom yi dañuy am jafe ci wàllu kàttan yàlla suñu borom may la ci nga ciy yëngu di ci jàppale jaamu yàlla yi tey lan nga ñu mën a wax ci ci wàllu kàttan wi nga xamante ne yor nga ko alhamdulilah mbiram kàttan moom damay wax ne góor ñëpp si war a moytu ndax mënoo dem si sëriñ mu ne damay faj kàttan yëkkati ab sunguf jox la na la bu guddi jotee naanal nga naan ko sa lépp normal soo ko naanu dara du baax hmm. loolu ku ko def weer ñaari weer mu jig la mbër nga hmm. waaw ndax sunguf bu ngay naan léegi yëg ko léegi ban garab la war a doon hmm. bu doon loolu la kay sëriñ yi jaruñu génn neen xaar pharmacie rek ndax loolu pharmacie yaa ko yor waaw loolu la nit ñi war a moytu man doomu Saalum laa ren laa xam ak xas ak man sama faju kàttan yëpp si ren laa ko teg mhm. ay ren yu naturel ren yoo xam ne ay bant laa yëkkati jox la na la nii nga koy jëfandikoo dugul looy naan léegi yëg ko léegi waaye soo ko xëyee naan gont ko naan danga nga seetlu ne yow mii sa deret am na lu koy raxas mhm. waaw mhm. ndax mbiram kàttan li kay kii dafa bëri léegi nag bu ñu la joxee garab goo xam ne da nga koy naan rek yëg sa bopp léegi jàpp foofu bu yàggee dootoo baax la loolu lu jara moytu la ndax mbiru sunguf yi luñ siy rax yëpp waxuñ ko. dëgg la waaw ndax mm-hmm. euh, man masumaa gis si saalum garab goo xam ne nit ki da koy naan léegi yëg boppam léegi te magi saalum yi dañ daan xam téeméeri xat di di doon góor ba léegi. Mm-hmm. Mm-hmm. fu ne nag nit 50 ans lay xam naan mënatuma donatuma góor. dëgg la léegi nag ren yooyu soo si delloo di ko di ko naan par ndànk-ndànk doo mosa am problème ndax dina la dina la raxas sa deret dina yokk ndoxam góor dina def lépp waaw man yooyu laa man ren laa ak yu demee noonu waaye mm-hmm. lu jëm si sunguf ak yooyu wax dëgg yàlla awma mm-hmm. sunguf kàttan mm-hmm. ñi nga xamante ni dañu yor yi nga xam ne dañu koy diw euh, ñoo ñu kon seen yokk awra ak yooyu waaw man nag yokk awra moom euh, am na mag mu ma si doon waxal waaye man xaw ma si dara waaw euh, xam bi ma si bëgg yoraguma ko du si wax man lu ma amul xam-xam si wax macha allah waaw yokk yokk awra moom aw ma si benn benn benn benn benn xam-xam waaw te lu ma amul xam-xam du ma si wax daara. wàllum kàttan gi daal. nga xam ne yàlla suñu borom may na la si. mu nekk waaw loolu daal moom mën naa si faj lu jëm si kàttan ay imurit ak yooyu yooyu moom mën naa lay jox garab yoo xam ne ñooy raxas lépp. ba mhm. ndax garabu kàttan gi may joxe. Mhm. Euh, dafay raxasaale imurit ak ndoxam yooyu yëpp. Mhm. si kàttan gi la ak gën a am doole waaye si yooyu yëpp da koy raxasaale waaye ay si teeg yëpp am na am na garabam. yooyu yëpp am na garabam. waaye daal. Euh, yeneen yu mooy yooyu. Mm-hmm. wax dëgg yàlla yokk awraag yooyu moom. Mm-hmm. amaguma si xam-xam mhm. te man bëgguma dem si nit di jëli di bëgg a dem Saalum wut ba mu doy ma indi teg yëkkati joxe mhm. looloo tax ñu ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah jërëjëf ñu leen di fàttali mbokk yi nga xam ne yéen a ñuy doog a dab ñu ngi toog nga xam ne moom moo di Serigne Ngobe Seck Saalum Saalum bi euh, kàddu yi am na solo mais am na ci leneen lu nga xamante ni itam am na ñu nga xam ne sonal na leen muy wàllum wërsëg am na ñoo xamante ni euh, fu ñu liggéey benn weer ñaar ñu daal di bàyyi am na ñu nga xamante ni dañuy wër liggéey ba sonn duñu ko am loolu lan la waaw loolu moom Euh, doomu aadama bi euh, bu fekkee da ngay liggéey foo dem fu baax doo fa am weer ñaari weer jógee fa mhm. euh, ay gàllankoor yu nekk ci sa yaram la mhm. gàllankoor yooyu nag yi koy waral day bëri nit cat sax dina ko def loolu mhm. léegi nag yooyu noonu li ko waral mooy da ngay ñëw seet ci sëriñ mu raxas sa yaram ba nga xam ne foo dem toog bu fekkee da nga nekk ci barab bu baax nag di sikki sàkk na dañ ma fay booxee boo ñëwee man bu ñu waxtaanee dama lay samp te samp bi ma lay samp mooy képp ku la fa bëgg a jëlee moom mooy génn. ak xeex bi ni mu mënti toll. ak ni mu mënti toll su ma la sampee si barab képp ku la fa bëgg génne mooy génn. Hmm. beneen bu si nekk mooy borom borom place ba si boppam si peggam la lay teg. Hmm. amul kenn ku la ko mën a gën a. maanaam yow lay gën a bëgg. waaw loolu hmm. am na bu fekkee nit koo xam ne nag moom dafa yore dafa amut wërsëg ay mbiram dafa fay kamas. boo ñëwee man nañ lay euh, taxal taxal yoo xam ne si xeetu si ni yu mel ni. yaasin yu ñuy liggéey mhm. am na yaasin boo xam ne ñu ngi koy liggéey si juróom-ñaari sondel euh, mubbi nit koo yegg da ngay taal benn sondel loolu pour taxal nit la mhm. loolu bu dee moom la daañ ko ko liggéey te loolu defalaguñ ko benn doomu aadama te ay mbiram tàkkul mhm. loolu nag euh, moom si wàllu woowu la waaye bu dee samp nit ak yooyu yëpp si barab yooyu yëpp daal bu si jokkoog borom ba xool lan moo gàllankoor mbiram yii waaw ñun ku ñu woo bu ñu wax dara woo ñi man ka damaa bëgg nga gëstul ma sama mm-hmm. mbir bul ma waxagum benn jafe-jafe su ma la mm-hmm. waxul lu jaar yoon rek ndax nit ki koo seetalut gis ko waroo koy ñaanal mm-hmm. koo gisul ay mbiram boo ko ñaanalee lor ko man na ku ma woo bul coupé téléphone toogal ma wax la li ma lay wax su juboo xayrun su jubuut nga ne ma bo mënoo maa ñaan kon képp ku bëgg ngir nga seetal ko bu ko neexee mu bañ a déplacé woo la par téléphone boo ma woowee bul coupé bu dee listixaar la moom day xat ndax ñi may xoolaan si télé yi di ma woo pour listixaar moo gën a si ñu may woo listixaar ma si woo ñu bëri nit moo leen di wax ne la wool diw mi mën na la dimbale say mbir yëpp mhm. waaw waaye loolu non ndax listixaar ni may listixaaree dafa nekk listixaar boo xam ne daanaka euh, su ma ko defalee nit ba wax ko li mu war a def yëpp mënoo wax ba say mbir du tàkk mhm. waaw listixaar dafa am yoon te boo xamee yoon bi dëgg mhm. ki mën nga koo wax ba wax ko suba lu muy xëy def waaw maam euh, listixaar daal li ma si mën a dénk mooy ma defal ko nit rek nga xoo ko laaj waaw Euh, man du ma nelaw guddi man hmm. fii ak sept heures jotul du ma tëdd hmm. te bu onze jotee fu mu jotee boo ma woowee jot na hmm. waaw euh, diggante bu may nelaw faju dara te daanaka sama kaw si jaada lay nelawee lu ëpp doole léegi nag diggante boobu si laa mën a toog di xam si nit ki xam si nit ki te su ma la war a xaaral daanaka lu mat ñaari waxtu dinaa nekk di lëggéey kurus loo xam ne pour sa listixaar la xam nga mhm. loolu la dëgg la waaw léegi loolu moo waral listixaar ko mën a defal mënta wax ni koo seetal boo ko gisee euh, moom dafay xam ne bu a baax gis nga ko carrément ma mhm. seetal moom su ma la waxee doo nit man nit boo ma woowee sax boo ma joxul sa tur mën naa lay wax lu ne si yow mhm. sa kàddu gii ñëw si man mën naa lay wax yow yaay kan seetu léegi-léegi mbiru rawaan la lii taxaw samay nopp yi di wax duwul loo xam ne nii Euh, damay tomb di la di la euh, naatable. maanaam raw xaan yi lay dee li ngay wax. waaw non daf mm. seet dëgg-dëgg seet léegi léegi dëgg. lu ëpp doole bu la ko nit defalu si rawaan mënul laa gis. Hmm? waaw ndax. Mm-hmm. dafa nekk mbir moo xam ne tey euh, nit ki faaw rek rawaan la mën a am tàggat rawaan yi ba mu am solo nit xooyee ko Amérique. Mm-hmm. rawaan yi na ko diw mii ngay ngay wax ak. dafa am problème mu nangam. dafa mm. am problème mu nàngam dafa am problème mu nangam léegi yow mën nga tomb tomb. man su ma la tombaloon dëgg man naa la tombal tombal kii seen tomb yi nekk benn te seen soxla yi du benn mm-hmm. waaw mm-hmm. wala nga xoo nit mu ne tànnal chiffre cinq nga tànn chiffre cinq moom itam mu tànn chiffre cinq te bokk leen soxla mm-hmm. maam dafa am yu laxasu si biir yoo xam ne dafa jaar dafa laaj xam xam-xam la li ma lay wax nii mbirub Saalum la waaye euh, ku si am dara lu la si lënt woo ma mhm. même mii sëriñ sax boo ma wooyee ma laay si macha allah ñu sant yàlla bu baax alhamdulilah nekk nekkul lu ñuy loo xamante ne dañu koy weddi ndax itam ku toog ak yow yàlla euh, ku toog ak yow dana xam ne toog na ak borom xam toog na itam koo xam ne yàlla suñu borom euh, may na koo xam-xam mu ànd ak ijaaba kon yaakaar naa ne loolu am na solo ñu dem directement ci li nga xamante ne moom moo di wàllu ubbeeku am na suñu nga xamante ne dañu tëju lépp lu ñu bunt bu ñu fëgg mu tëju du ubbeeku te itam seeni seeni wërsëg dafa gàtt ak yi ni mel ñooñu tey loo leen di jàppale ak lan nga leen di baaxee. waaw yooyu moom bëri na ay xeet yu ñu si def. Mhm. man na man neen la dimbale si wàllu cangat man neen la dimbale tim si mhm. wàllu kurus. ndax ñaan yàlla moom dafa yaatu. Mhm. nit ki mën nga ko lëggéel si kurus fu nga toog ay mbiram dox soo paree sarax bii rek nga koy wax. Euh, waxuma nag. pare na ko génneel gëlëm mhm. pare na ko génneel benn doomu guru laa sëriñ yi nag ñoom dañ naan la génneel lii génneel laa limal la ko ba mu bari mu mat xaalis bu dul jeex ñu ne yónnee ma ko mhm. man waxuma loolu man képp ku ma wax li ma lay wax dama naan la boo ko manee génn ko léegi soo ko mënut seetal sa mbokk mu la jege mhm. léeg-léeg na ma wax nit mu ne ma yow rek laa doyloo dimbali ma si ndeysaan waaw loolu moom day am te ñun daara jàng fi boo waxee ñu yónni si daara ji na def leen lii def leen lii mhm. loolu moo ci nekk waaye lu ak tëju gu la mën a jàpp boo ubbi woon ba suba ba ngoon sa téléphone kenn du la woo bu ñu la defaree canga trois jours boo ko sangoo foo mën a jaar euh, euh, say mbir day kemtaane loolu mhm, mhm. waaw ndax euh, waaye nag cangatu ubbeeku duñ ko defal nit te defaluñ la cangatu raxas yaram ndax nit ku nekk lu ko tëj lu ne ab gàllankoor la te mm-hmm. gàllankoor li ko waral da nga ko war a tegg soog ko jox ubbeeku mm-hmm. ndax boo ko joxee cangat bi lu mu am am doole te amut ubbeeku amut amut euh, lu raxas yaram bi ba mu mm-hmm. set mën na ko sangoo bëgg dee te du gis dara waaw ndax dafa am lu war a jiitu raxas yaram bi ba mu set ba mu yëg ne yaramam oyof na lool mu teg ci ubbeeku gi nag bu koy laal. ay mhm. mbiram yëpp tàkk. macha allah noonu mooy ñaan. Mhm. am sant yàlla bu baax alhamdulilah. am am na solo lool ñu ñu wàccee suñu question yu mujj ndax yaakaar naa nit ñu cërale woon ci waxtu mi ngi bëgg a jeex dañuy daal di dem directement ci wàllu bayre ndax itam yaakaar naa nit lépp loo yëngu te amul yaakaar naa ni du safee te itam am na ñu nga xamante ne nii euh, ñàkk bayre da leen a sonal ba tax fu ñu dem du ñu fa yàgg euh, tey ñi nga xamante ni danga leen di jàppale ci wàllu bayre euh, lan ngay naka ngay liggéeyee ak ñoom. waaw bayra moom euh, bëri na façon mhm. bayra bëri na façon lool ndax euh, am nga buntu bayra si wëddoodu ba doohu haadi am nga buntu bayra si suuy na am nga buntu bayra si umrul xaysi am nga buntu bayra si afala yéen suróona loolu yëpp si buntu bayra yi la mhm. waaye man damay wax ne képp koo xam ne maa ngi la waral defal bayra danaa la sàmm na la dëgëralal sa fit mm. waaw waxuma la nag bul tiit si kaaraange ndax danaa la jox loo xam ne moo lay aar ba. coow li micro bi uh-huh. coow li lum rëy rëy du la def dara. Hmm. waaw euh, ndax euh, dañuy wax ne képp ku naan képp ko ku génn ñu naan xool leen kii xool leen kii su borom tiitee rek mooy loolu. Hmm. te bayre yi ñuy liggéey noonu la mel ndax bayre yi buñ ko liggéey si afalaa yéen suroona ilal ibili kay fa xuliqat wa ilal samaayi kay fa rufiat wa ilal jibaali kay fa nusibat wa ilal lardi kay fa sutiat hmm. Euh, sin borom mu ne afalaa a kanaa gisu leen diw mi kanaa gisu leen aaya bi yëpp loolu lay wax afalaa a kanaa gisu leen ileel ibili jëm si gëlëm gi kay fa xulli xan naka laa ko bindee mhm. léegi loolu yëpp soo ko boolee sol ko fu mu génn ñu ne kanaa gisu diw kanaa gisu leen diw kanaa gisu leen diw mhm. loolu mooy dëgg dëgg bayra bayra boobu mooy bayra bukki bu fekkee na nag góor goo xam ne moom bayra jigéen moo ko yittalisee moo ko moo ko soxal ba nga xam ne fu mu toll bayra jigéen lay wër mhm. loolu si bayra umurul xaysi lañ koy liggéey mhm. bayra la boo xam ne am benn góor gu ñuy wax umurul xaysi si la ko mag ñi tëggee mhm. góor la goo xam ne moom jigéen rek moo ko soxaloon waaye yàlla da ko si cëraloon waaw ba fu mu génn jigéen ñi topp ko léegi nag bayra boobu bu ñu la ko defalee garab yu muy ànd ak boo ko xasee am euh, am na garab gu ñuy wax sama euh, garab la goo xam ne naar yi jaay poon caaro yi ñoo koy faral di am Euh, mag ñi da nga daan dégg ñi naan la da nga siiw comme pon garab googu noonu si garab yooyu lay jóge soo ko si boolee néew na nga gis ku ko sangoo ñaari fan te waxul ne mbiram jigéen daf ma sonal mm-hmm. waaw mm-hmm. loolu mooy bayra jigéen bayra daal bëri na façon waaye lu waay bëgg si bayra boo doon euh, war a def dara sax di ragal day wét mm-hmm. boo ma la joxee dara na la jëfandikoo ko foo mën a jaar bu doon ne fi nga yor junne place la sax day fees. Mhm. waaw moo xam ku war a def programme lu mu mën a doon. kuy jaay waaw ak kii jaay bayra njaay moom. yorewuñ si sax lii sangoo dama lay jox rek na la booy xëy rek raxasul sa loxo yi dem. Mhm. loolu laal mu jar. macha allah loolu jafe naa. barki da ngay dama lay jox na raxasul sa loxo yi. Hmm? Euh, loolu loolu loolu loolu jëfewut di ndax tey boo xoolee. Euh, isaa jaa a nasrullahi wal fattu mhm. wa raayta naasi yadxuluuna fii diinillaahi doo def afwaajan de da ngay def afwaajar afwaajar afwaajar mm. loolu ngay def nga def afwaajan waaye da ngay bàyyi afwaajan def afwaajar afwaajar afwaajar mhm. ba mu jeex boobu noonu bu ma amul kenn ku ma koy liggéeyal mhm. euh, te boo xëyee raxasoo ko lool laal mu jar hmm. waaw loolu moom góor gu ma ko jox dafa ne ma ku ñëw lu la neex na ko jox ma. boobu de maa ngi koy soog a dégg ba ma dalee toog ci ay. yàlla xam ne ne li ma man man moom li ma lay wax. Mhm. li ma la fi wax nii si xam-xam. Mhm. bagage mag la. macha allah waaw mhm. loolu moom lu wér la bagage yi mag la maanaam duwul loo xam ne da ngay dox si mbedd mi ko waaw duwul doo xam ne xanaa xamoo ne euh, nit bu tëralee oto sax mu tëja jar su ma la bindalee baat bu ñuy wax dif un dif un. dif un benn baat la boo xam ne ñetti xaraf la te benn taq benn taqaluut ak moromam mhm. soo ko bindee cent onze xapp ko si oto ba bu ñu la doon fay cinq cent mille daañu la fay un million mhm. billaay te da koy jaay léegi loolu moo ci gën a kéemaane maanaam <laughs> day jar léegi day jar léegi te da nga koy jaay li nga ko bëggee ci gën a kéemaane maanaam mbiru mag la yoo xam ne du ma ko mën a faram-fàcce lépp am na solo waaye dañuy defaat beneen jotaay waaw incha allah yàlla ko defee yàlla nga tënk lépp nga nga nga daal di koy leeral ma ñëw ci sama sama kàddu bu mujj wala sama question bu mujj ndax am na boo xam ne moom mënumaa toog ak borom xam-xam ba jóg rawati nañu mel ni yow te du ma leen ko laaj am na ñu nga xamante ni maanaam euh, téye alal moo leen jafe maanaam lu tege seen loxo rek euh, këppwaat maanaam bu ñu yoree lu mat un million jëfee dafay daal di dem. waaw loolu nag xam na côté boo xam ne. Mhm. Euh, li ko waral mooy maanaam nit ki euh, léeg-léeg dafa naan lu ma yor mu dem. Mhm. te yow loo yor yaa ngay dugal fenn denc ko ba pare na lu ma yor mu dem loolu mantu ne. xam na mhm. loo xam ne nag moom euh, loxo bu bënn la mag ñi daan daan wax ne loxo bu bënn. am na garab goo xam ne buñ la ko joxee nga jël xob yi foto foto ko sa loxo. mag ñi dañ ko daan def bu ñu demaan ba takk seret bi di dem si gor ya ba si yoon nga dégg góor gi na taxawal fàqal si garab gee mu jox la nga ne foto fotool sa loxo yi da ngay gis ne suur yooyu lu ñëw sa xaalis sa loxo da koy def da dugal sa poos xaalis une semaine fàtte ko mm-hmm. li waral mooy toog si loxo bi waaye xam na benn aaya boo xam ne boo ko bindee mm-hmm. euh, nga raxas si sa loxo ba mu set boo paree nga jël ko sangu si ñetti fan foo mën a jaar loo yorati mu toog mm-hmm. waaw euh, euh, waxuma nag toog nga xëy di ko gis bët bu set mantu ne ndax xaalis dafay lëggéey mhm. faaw nga dugalaat ko feneen mu juraat dara waaye lu bon mooy xëy xam cinq cent mille euh, suba ngay laaj foo ko def mhm. loolu mooy bon mhm. waaye xaalis mantu dëkk si bët di ko xool nit ki bii lëggéey te sàcc boppam sax du dajale jamono ji dafa toll foo xam ne xaalis yombatu léegi yaay liggéey di sàcc sa bopp pour mën a am dara mm-hmm. léegi nag boo bëggee ne man naa xëy di tiim sama xaalis bi yëpp di ko kii bu yàggee rek mu réer mm-hmm. waaw faaw rek da ngay am foo ko dugal léegi nag bu fekkee loolu moo la jafe moom daañ la dimbale si yooyu xam nga mm-hmm. waxtaan wax dëgg dafa si bokk ñi laaj la question na la nit ñi luñ nga ne maas yi gën a aay maas yi gën a nàngam te fekk dafa am yoon yoon wa ngay jaar ba noppi sogo sogo wax Euh, li war a wax. am na solo loolu daal ñu ngi ciy sant yàlla. ku si mhm. ñëw rek ñi seen nuñ la laayee biir. te ñun suñu liggéey laajut alal am na solo jërëjëf di ko jaajëfal bu baax di ko sant Serigne Gobe Seck saalum Saloum bi euh, fekk si woon ko ci diwaanu euh, Zac mbaaw boo ñëwee rek ba ci li nga xamante ne moom moo di poste courant bi ko ko laaj euh, mu daal di lay joxañ këram numéro téléphone yi mi ngi noonu affiché si écran bi Serigne Gobe ziar nañ la bu baax santaat la bu baax a baax beneen yoon bàyyi la nga tàggu ji lay seetaan alhamdulilah ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di mm-hmm. wax ne bëri na lool waaye dañoo gis ne ay ndaw bu ñuy wër ay doomi aadama di gëstu xam-xam euh, da nga leen war a ubbil bunt mhm. te tim loolu rek ngeen si jublu boo déplacé wu bii dakaar ñëw ba fii fekk ma fi ngir am loo ma laaj ci xam-xam ak nu Dakaaru xate mhm. uti naag àll ba xam ne ngay takk sere di nararari rek fii nag moom foo tourné oto yaa ngi gaare mhm. euh, ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal yàlla yal yàlla defal leen sutura saay rek baatin yal yàlla sàmm leen aar leen dañuy wax ne ndaw bi di liggéey te bu xëyee suba ba ngoon si ay matériel lay toog mhm. danga koy ñaanal yàlla aar ko ndax lu ne dafa si nekk mhm. waaw wala waxkat koo xam ne day téye micro di tàllal mhm. da koy ñaanal yàlla suturaal ko si damm dammab làmmañ bis mën na ñëw rek mu damm si làmmañ wax loo xam ne day day day day yàq liggéeyam yëpp ba fum mu tourné ñu ne moo waxoon li kon yàlla na leen yàlla musal si damm dammab làmmañ yàlla yàlla yëkkati seeni liggéey ba nga xam ne Euh, dina dem ba toll foo xam ne da ngeen di xëy di surveiller nit ñi nu ñuy liggéey yàlla man na ko yàlla na ko yàlla def ñu leen di gërëm bu baax di leen jaajëfal jërë ngeen jëf ngeen jëf internet yu ñu doon topp di leen fàttali rek Serigne Ngobe Seck Saalum Saalum bi eh, la ñu fekk si woon ci diwaanu Zac Mbao dégg ngeen yu am solo yi nga xamante ni daal dina koy yëkkati ñu sant bu baax di ko jaajëfal di wax yàlla suñu borom yàlla na yokk hijaaba bi ba nga xam ne bu ñu ñëwatee dinga nga décortiquer yeneen yi incha allah eh, jaajëfal rédaction bu dakaar live sant gërëm sama caméraman di leen jox rendez-vous ba ëllëg ci keneen ku may dal jërë ngeen jëf